original ay waay fii xel leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. Bienvenue à Dakar Sénégal bienvenue chez Dibiteri Lomboté kër Cheikh Abdallah Fall numéro un lañ ko duppee ci képp kuy jaay tey lakk yàpp fii ci Dakar mani yàpp bu nooy nepp ñor xomb ba ca yax ba moutarde bi wër ko sauce vert bi romb ko soble bi sànneeku ca kaw kaani gi ci wet gi xet gay gilli mburu mi tàng jër xam nga ni dibi bu neexee nii ci la mbote dong nga ko mën a amee waaye yéen ñam ngeen yàpp saaf bi ñi ko ñam ñëpp nee na nañu yàpp saafu la mbote ak bu tabaski amul différence ey eh, gaay ñi mbote mbote lu na nañu lool waaye dibiteri le mbote ñaar la fii ci Dakar jàppal am nañu dibiteri la mbote kër Cheikh Abdallah Fall chez Papis bu Serigne Sall Médina rue 11 angle 8 téléphone 77 036 50 88 ou 33 822 13 88 am na nañu aussi Mamel Kër Jaraaf chez Papis bu Serigne Saliou dibiteri Cheikh Abdallah Fall téléphone 77 036 50 88 ou 33 865 31 09 alors chers clients précisez bien ci zone bi ngeen nekk ngir ñu mën leen indil seen livraison mbokk yaakaar naa ne kii ñu taxawal kenn dootu ko présenté ci làmb mooy kan Jet Li le grand champion ci làmb def ci lu nag di mag ci ki nga xamante ni mooy Sokh yaakaar naa ne amateurs yi namoon nañ ko waa Sénégal namoon nañ ko amateurs yi namoon nañ ko moo tax tey ba ñëwee fii ci arène nationale faaw ñu jël ko waxtaan ak moom duñ def lu dul nuyu ko waxtaan ak moom Jet Li bëgg naa la ziar. naa la bu wér kilifa. yaa nga am jàmm. waaw maa ngi sant alhamdulilah. namoon nan la. waaw maa la raw maa la raw la ñëw. waaw tey laa fi def deux semaines. yaa ngi doog a dugg arène nationale. ah ñëwoon naa lamb euh, booy prince bi prince bi muy bëre waaw. Mm-hmm. noo gisee lamb jamono ji ak ni muy waa comme dab rek ñu ñaan gars yi gën a jàppale lamb ji. waa ndax ndaw yi ci nekk bari nañ. te yaakaaruñ dara loolu rek lañ yaakaar. waaw buñ leen jàppalee xëy na ku ne dina ci gis boppam. Mm-hmm. jàppale jàppale ci bon côté. jàppale ci lépp encadré ñi nga xam ne ñoo ŋànk lamb ji. ñu fexe am sponsor sponsor bi dooleel promoteur promoteur mën a yokkal mbëri waaw. mais boo nekkee fële yaakaar naa ne yaa ngi woon di du di gis làmb di seetaan lan nga lan nga yëg. waaw neex rek comme man ci laa newoon nu ma seetaan lu dul loolu waaw. kenn li kañ la gëj a bëre. maag jamteeri laa gëj a waaw mbaa mu neexoon. waa gis nga. instant yi jatli ñibbisi na gars yi bëri di laajte jatli day bëre wala dafa bàyyi bëre. maa ngi fi rek pour l'instant di xool. xool waaw maa ngi su observé waaw. instant ah? yi dafa mel ni Jadli xelam genn na mu ngi ci bëri de. ndax. dafa mel ni Jadli ni ma déggee muy waxee ni dafa bëgg a bëriwaat. waaw mais loolu moo tax ma ñëw toog fii rek taxaw di xool. Uh-huh. waaw. yaa ngi yaa jàng. waaw maa ngi jàng. mais instant yi nii Jadli bu ko joxoon ay adversaire ñan ñooy ay adversaire am potentiel. ñëpp. ñëpp ku dëkkul Pikine rek uh-huh. waaw. mais comme ñan boo nekkee fee ñala sa yaram di la. non munu ma lim kenn. gars yi xam nañ ci ligne bu ma nekk. mais bàyyiwuma kenn. Uh-huh. waaw mais dañoo gis gars yi tukki woon yëpp ku ci mel ni Pambaay gis nañ ko mu ñibbisi. jet li ñibbisi. gars yi bëri di laajte la moo tax gars yi defaat retour bëgg a ñëwaat ci lam waa nit ku nekk boo amee lu la manqué nga uti ko bis boo rootee ba yàpp ni fees nga. fan ngay xalaat. waaw root boo rootee ba mu fees sa kër nga jëm. Uh-huh. doo ko yenn di waaw kon dañoo ñibbi si. kon jar li daa rooti woon. waaw. am na lu dal xelam. bu baax. macha allah mais yaakaar naa ni ba nga nekkee fee soq. di raq ci yow macha allah mi ngi doon bëre nga gis ay combat am gis nga digganteem ak Marley digganteem euh, ki nga xamante ni mooy euh, Barki Demba Ndiaye mook Jackson mook Faran combat yooyu yëpp yaakaar naa ne fekku la. waaw fekkuma fi mu ngi fekkoon ma voyage. waaw mais def na li mu war a def yàlla moom mooy séddale. lu mu la sédd rek loolu nga Sokh jamono ji ay yan erreur la def digganteem ak Franc ba ñaax combat waaw mën nañu wax ni erreur la mën nañ wax ni ñu war a ñàkk la waaw ndax gis nga fi mbër buñ daw song ba teg ñaari loxo mu ku daan warul ñàkk waaw boo waree ñàkk nag nu ne ngay daanoo waa duñ ko jiiñ kenn dañ koy bàyyi suñu borom rek waaw moom moo ko seddu lool lool laa jël bu defaat retour digganteem ak Marley match nil ak Marley boobu tam ban jàngat nga ci def waaw mooy li loo moomul yàlla lim la jox rek jàppal ni loolu nga am ci bis ñun dañuy sport mais dese nañ xam lan mooy loi des sports dafa am ñet daan daanu match waaw loolu la loo ci am rek jëlal dem. dernier combat am ak Jackson. waa indi na état bu baax. daa am détail bu ndaw bu ci nekk xam nga moo tax mu ñàkk làmb jooju mu ngi ci yoon bi fi mu nekk baax na. te dina ci continuer incha allah. état bi mu indi leen Jackson d' accord nga ko. waaw bu baax daxay yokk sax incha allah. li mu bëri contre Jackson loolu la waroon bëri. waaw loolu la waroon a bëri def li mu war a def lu ci xew noonu xew na yàllaa ko séddee loolu jël na sant na. Uh-huh. en tant que doomu Pikine ngay nekk fee di dégg coow ñu naan Pikine dafa am coow ñi ànduñu 200 pour cent bi du dëgg yan jàngat nga ci am. waaw comme nekk ma fi woon loolu damay mal placé pour wax ci. fi nekk ñu xool nuñ koy gérer. xam nga bis buñ koy waxtaanee bu dee fekk nañ daañ dem déglu tamit parce que ñun Pikine rek moo ñu ñor. Uh-huh. lu waay gàtt dégg xam ni Jackson doomu Pikine la ñu gis Modou Lo ni nga xamante def na ko Pikine dugg fa daan Eumeu seen daan Boy ñaa daan Ama Baldé Jackson yàlla euh, la def. waaw yàllaa ko wërsëgale te war na leen mën a daan ndax mbër la waaw loolu xam dañ koy ñaanal mu jikko ñi mu daan tamit ñu góor góor góorgóorluwaat liggéey jéem a uti. ndax ñoom daan nañ yeneen mbër yu dëkk yeneen gox waaw loolu la sport moo mel noonu. mais boo toogee dégg ñu naan ay Boy Niang Eumeu seen Ama ànduñu déggoowuñ seen biir. waaw moom laa lay wax loolu man mënu ma ci wax ndax xaw ma ci dara lépp lu ma ci wax rek damay wax loo xam ne maîtriser wu ma te ñaanu ma yàlla wax loo xam ne maîtriser wu ma ko bu boobaa dinaa dugg ci kaaru naa fekk bi ta ñaan ma yàlla dugg foofu. macha allah waaw barki dem rek def sorti ne Boy Niang ak Ama Balde ñi leen Modou daane bu doon moom du ko daan. ndax Modou Lo ba muy bëreeg ñoom ñaar ñëpp dafa blessé woon bu doon moom Modou Lo ko Modou Lo ko def moom xam na boppam moo tax mu wax loolu nañ ko ko nangul nit ku nekk am nga droit wax li na ci yow. waaw kon man aw ma leen lu ma ci wax lu dul. bëri na dafa minimiser booy Niang ak Ama Baldé. nit ñi ñoo ñoo ku nekk boo àttee li ne sexeel loolu yow la concerné mais moom li mu wax am na droit wax ko. lan ngay wax amateurs yi ginaaw ba nga defee sa retour. waaw amateurs yi. di wax nañu xaar rek ñu ñaanalante jàmm ñun ñëpp incha allah. waaw bañ xamoon démb ak bërki démb mën nañ ko gisaat ci la waa léegi rek incha allah. jat li boo xam dafa gëm boppam ñëw wane jom ful la fayda. jat li li na si moom da koy deewaale yàlla moo ko jagleel. waaw loolu mu ci moom nekk na ci moom. ay naar sogaas ak ki nga xamante ni mooy si bu Ngor ñoo war a bëre yaakaar naa naar sogaas nga indi. waa naar sama kilifa laa indi. sa waaw bu war a xale. waaw xale bu war a dajeeg mag. Uh-huh. mais temps yi xale ñoo fi jëlee mag ñi rek. waaw mais loolu dëgg la xale doole la mag a xel. waaw. loo koy tiital tey. naar. Ah. li ma xam mu tey rek. xale mën na përëx përëx ba fa xasalu daanu. ñun naar ku dàq naar moom li ne moom ci moom bëre. ah yaakaaruma ni bëri na ci mbër yu mu nekk de bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax waaw mais xam nga moom day tollu période yoo xamante ne doo ci ne mais ñaan nañ yàlla may ko ndam tey ci barke yeneen bi combat yi taxaw yaakaar naa yëngu ko ma seen saa Thiès Tapha Tine Balla Gaye 2 ak nga xamante ni mooy euh, Bombardier Franc ñu gisee ko waaw ñu egg ceeg jàmm làmb yi neex la ay xale ak ay mag ñoo daje waaw mais ama seen duggoon ca kër ga daan Balla Gaye ñaari yoon war a dajeek rak loolu mun ta yomb ndax Sa li mu war a jël si dafa bari waaw ndax Sa Thiès mu ñëlam yu bari Pikine la ko déggee waaw kon day am lu bari lu muy ñëw jël si waaw mais du ko yennu parce que moom sportif la. su fees noo am na combat de. am na am na combat ndaanaan la mais am na combat. wax nga ne am na combat. waaw ndax tafaatin biñ gis léegi dafa décidé ba pare ay mboqam ñoo ko encadré. waa loolu la manqué woon ay mbokkam ñëw nañ. kontaan nañu waaw fii la Pé Baye ziar bu wér a di leen ñaanal jàmm ah. ok. bëgg na ñàkk ñàkk ak noonu la grand champion naa la ñàkk. waaw fii la maa ngi ci loo ne. waaw gërëm yàlla rek nekk sama. namm nan la. waaw maa ngi nii am na bu may wax quoi instant yi waaj quoi waaw. maak maas la ñuy wax waaw mais maa ngi waaj loolu tax bëgguma ko si woon. maas Bal Tamba mais maa waaj waaw. Ah. waaw. mais gars yi bëri na ñàkk du jël ñum tollool doole dafa mën a bëre mais ñi muy jël ñëpp dañ koy ëpp doole c'est que problème mu làmb ji doole wala nga mën du nangu nga bëre ak moom léegi nag pour nga bëre boo bëggee bëre faaw nga jël ñi nga xam ne ñoo wala ñu ma tollal weesu naa ci fii ci làmb mais moo toll foo xam ne léegi affaire dialogue la quoi dañuy naxante barke te man dama am wàll ci làmb parce mais après dañuy bëgg a jox ay boo yoo xam ne kenn xamu leen wala ñu ëpp ñu doole ñu ñëw bëre ak moom ndax bëgg yaa ngi wax Cikiri de Cikiri Thiatio gone ak Dakar non barki alxuraan moo gënal lu lu ma am sama ko gënal Cikiri Cikiri ma gënal aajana ñeme nga riiram buñ ma waxoon aajana ngi ne ma Cikiri ngi nii ma bàyyi aajana jël ko ba pare nekk suñu borom ma ko mu koy ko jox man ma bàqoo ak moom mais wallaay ah. ma jox samay morom ma bëre non ñu nekk sama ginnaaw bëri na Omar Sané mu ci Modou Modou Gueye man ñu nekk sama ginnaaw ñoo set loxo. Modou yaa ci loxo yu wóor. ci loxo yi woor laa yor loxo yi wóor yu set ñoo ma yor. macha allah barke yonent bi. bëgg naa ci yow Adja Ahmed bi la ëppee. vite fait ngi borom dóor mu daanu yi ziar naa la. lay fay naar. ci loo sant yàlla bu wér a wér a wér. keroog wuyu nga sa de. waaw noonu la ñun moom xam lépp bu ñëwee si instant bi lépp lu ñu war a def dañ koy def mais dernière décision bi yàlla la yàlla moo yor suñ borom moo ñu jox du si ñun quoi di ko sant bu baax a baax nag uh-huh. parce suñ borom moo xañ quoi uh-huh. comme tay bu ñu mayee dañ koy bu baax a baax waaw uh-huh. ah. mais nga jël Cheikh Bara bari woon lool ñii ne moo ko mën ak ko coow li boo ko doon dégg nan la amul foofu ñaari xal lañ tolloo génération tolloo doole ñu boole leen suñ borom moo ma dimbali may ma ndam ci kawam waaw moom mën na ma dóor ma daanu waaw koy sant yàlla bu baax a baax ñu xam ne lépp mbirum suñu borom la rek waaw ah, waaw. mais combat bi xaaroon nga ci dóor mu daanu boobu. non maanaam su may bëree lépp laay indaale amaana bëri lañu indi woon nag mais lam moom da ngay indi lii lii am mënoo xam lii am yàlla rek moo xam lii am waaw da ñëw rek andi dernière décision bi suñu borom la moo may ndam ma door ko mu daanu. mais ñu gis keroog arbitre la sa adversaire indi xeex nga ñëw wuy si ko ci xeex bi dóor ko mu daanu. waaw bu andee xeex xam ñu ñun ay góor lañ te làmb affaire de góor la parce que mënu ma toog arbitre bu lee mu may ërtal may daw donte ma wax du lool sax parce que damaa waroon a reculer dem déplacement mais dama ko fekk si li mu bëgg borom dimbali ma si loolu kese la yàlla moo may quoi. door nga Cheikh Barry mu daan yaakaar naa bi moy quatrième KO xaw ma cinq. bi mooy quatrième KO. quatrième KO mi ngi sept combats sept victoires quatrième KO. macha allah yaakaar naan fils de Serigne Ndiaye moom kenn du ko laaj ku jàngal xeex. non loolu moom mooy loolu ku sa bàyyi Serigne Ndiaye xeex la loolu xeex la waaw. foo waaw samay morom laaj laajuma kenn képp koo xam ne lamb booleel nañu rek incha allah amateur yi bëgg ko ñu jël ko bëre parce que ñun amateur lañ fi nekkal waa ñu sant yàlla bu baax nag parce que yàlla moo ñu may amateur lañ fi nekkal lépp loo xam ne bëgg nañ ko incha allah dañ koy jël waaw. bi ma nekkoon premier grand combat. bi ma nekkoon sa premier grand combat. encore une fois di sant waa Jaxaay gépp sama doom day métaa mi di ko sant bu baax. Jaxaay 1 Jaxaay 2 cité gendarmerie 12B xam nga waa Bawol kenn képp koo xam ne ñaanal nga ma ñi ma yéene woon ngi ñaanal ñëpp jàmm suñu borom defal leen jàmm bu baax a baax parce que làmb noonu la ko waa di santaat yàlla bu baax. yàlla moo kontaan na waaw jërëjëf. jaajëf.